fukk ak juróom-ñeenteelu édition Ziar Sarsara fii ci Mauritanie mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen première journal Ziar Sarsara édition 2023 bokk yi bokk na ci la ci gën a fës délégation bi jë euh, fële ci Sénégal départ kër Serigne Touba Khadim Rasoul te Touba Darul Manaan ànd ak nag ONG Ahlu Café daañu dikk ak ñoom ci délégation bi nga daañu dikk ak ñoom ci. daañu dikk ak ñoom ci départ bi nga xam ni moom la ñu amalee foofu la ñu ca Touba Darou Manam ak kaddu yi Cheikh Abdoulaye Dieye ci ndigalu soxna maam Issa Mbacké buñ fa jógee nag daañu yegg ba fa xam ne moom mooy Louga li bërëb ba nga xam ne fa la mbooleem daayira yi tase euh, amal fa benn nag ndaje boo xam ne ni ca la ñuy waajalee def benn caravane jubali fa li nga xam ne moom mooy Nouakchott commission ba nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di ab daayira boo xam ne ci njiital maire Samb di nga xam ne moom mooy dalal gan yi bawoo foofu noonu ci ci diwaanu Sénégal ak ci mbooleem daayira yi ñoom ñëpp daañu euh, ànd ak ñoom ci li nga xam ne moom mooy wàccaay bi naka lañ ko defee ba teeru gan yi lee mbokk yi ba tey rek ci ziar Sarsara bi am na li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllu formalité yi ren nag ak daaw am na coppite gu baax a baax ba tax na nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite convois yi yombalal na leen lu bëri bëri par rapport ak li daal am ci at yi ñu weesu mbokk yi ba tey rek fi nga xam ne moom moo nekk ci Mauritanie waa kuréel bi nga xam ne ñoom ñooy jay sun ak waa Masalikul Jinaan ñoom ñëpp daje nañ fas yéene ñëw nag fi nga xam ne moom mooy Mauritanie ci ziar Sarsara bi dañ ci dégg seen kàddu ñoom ñëpp ak ña ak ña nga xam ne ñoom ñoo bawoo fële ca Ndakaaru Njaay ca Masalikul Jinaan mbokk yi ba tey rek ci wàllu édition bi nga xam ne moom mooy journal bi li nga xam ne moom mooy ci fii ci Nouakchott Serigne Sidi moto Murtada dalal na ñi nga xam ne ñoom ñooy délégation yi toll na na ci lu mu ëpp juróom-ñeenti bus yoo xam ne ni ñu ngi baw fu ne ci Sénégal waaye tamit ñoom ñëpp nag fas yéene jébbal seen bopp nag ki nga xam ne moom mooy Serigne Sidi Mbacké ngir mu ñu mën a ànd ak ñoom ci liggéey bi daañu ci déglu Serigne Sidi ak euh, mboolem délégation yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew. ci biir Nouakchott ba tey rek ñi nga xam ne ñoom ñooy commission d'accueil bi ñoom tamit nag waaja nañ lépp loo xam ne jëm na ci ziaru Sarsara bi ren bi ñu fas yéene ci ànd ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu dalal fii ci Daaru Naim ci Mauritanie ci Nouakchott mbokk yi comme ni leen koy waxoon ci bopp xibaar rek fédération bi nga xam moom mooy Euhlou Café ci ndigalu soxna maam Issa Mbacké déparé nan ca Touba Daarul ma Manaan ci ndigalu soxna maam Issa ñu teewlu kàddu yi seen Abdoulaye Dieye kàddu yi nga xam ne moom la ko soxna si dénk euh, bis bi ñu ci war a dugg dugg nañ ci oto yu ndaw itam ñi ci war a dugg dugg nañ ci ñu fas yéene nag déparé fii ci Daaru Manaan euh, fas yéene nag dem fële ca Louga ngir daje ak convoy ndax ren sëñ Sidi dafa joxe ndigal convoy yi Sénégal yëpp ñu mën a àndandoo moo tax incha allah suñu demee Louga danañ fa dajeek ay convois yu bari ñu jóge Dakar ñu jóge Thiès euh, ak ñu jóge ci yeneen gox yi ba fële ci 50 Kër Moussa incha allah suñu jógee Louga nag ba ndekki ba pare nag la ñu fas yéene incha allahu taala dem Nouakchott waaye balaa ñuy dugg Nouakchott nag faaw ñu jaar Rosso bu ñu demee Rosso nag foofu la ñuy defee suñu ay formalité bu ñu defee formalité yi ba pare nag délégation bi nga xam ne ñoo ñu war a gàttandu fa lañ leen di fekk. Eh, ñu ànd ak ñoom incha allah ngir fas yéene wéy Nouakchott noonu daal lañ ko moom ñëwul nag waaye xelam mi ngi ci liggéey bi ndax yaakaar naa ne saa ma toogee ay quelques minutes rek dina ma woo laaj ma mbooloo mi laaj ma tam mbaa amuñ jafe-jafe laaj ma tam mbaa yéen a ngi ci jàmm wax dëgg yàlla léegi nii bi may woo rek li ma doon doyee mooy ndax départ ngeen wala départ gu leen ma ko suñu départ incha allah dinañ la woo kon nag nee demul mais xelam ma nga fa xam nañ ne tam nit ñëpp jàppale nañ ko ci li mu nekk eh, ña fay teew tam jëmmam lañ fa teewee xam na loolu biig bi ma demee ci moom di ko di ko tàggu daf ne ma li ma jàpp daal mooy sarsaar yi ngeen daan def yëpp sarsaar ren ji moo ci dàq sama ñàkk teew doon dara ndax ña fa ñëpp samay jëmu lañ. gannaaw bu ñu jógee nag ca Touba daal ma na mbokk yi xam ngeen ne waa Louga nag ñoom tamit nag at mu njëkk ñoom ñooy dalal gan yi e, ñoo xam ñu jugee Dakar wala jugee Touba ak mbooleem ci gox yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi te fas yéene jubali fa li nga xam ne moom mooy Nouakchott bu ñu yegsee Louga nag dañ fa daaw ab diir bu ko defee daje fa ñoom ñëpp nag ñu mën a waajal def benn caravane waaye nag soxna si nga xam ne moom mooy maire Samb at mu jot moom mooy dalal gan yi ci jëm ci bernde yi ñu déglu ko ci wàccaay gu ren gi naka la ko dundee. di sant nag maam Issa Mbacke bu baax a baax te xam ne xéewal yi sañu ma koo bañ yéen a ko moom ndax sëñ Touba ma ko sas sañu ma koo bañ ji sëñ Touba ko sas. di sant nag maam Issa bu baax a. keroog ba ma bëggee eh, ñu yëg de fi la ñuy jaar na ma soxna Diop fi la jaar jëm Sarsara. man a soxna nday jaag mi ñu bokkal daayira muy daayira ay raxmati nan ko jaayante donte benn siwa soow la ak benn boolu laax ñu dem yut leen ko ay booli laax la ñoon indi fii ak ay syndicat soow waaye sëdd bay dem ba midi mu leen di naajeel mun a soxna njawoon naa laax yi neex na lool waaye dafay tardé liggéey bi ñu bu jëf ko ay xéewal yoo xam ne macha allah daaw fekkuma fi waaye dama téléphone ñoom soxna nday jaag soxna toola kase soxna ayda caab ñi ma àndal muy daayira ay raxmati bi ñu taxaw ko indi xéewal yi ren jiit wax dëgg yàlla noonu ñu ko taxawoo. Rosso Sénégal Rosso Mauritanie foo la ñu amalee formalité yi ngir mën a jéggi dem Nouakchott mbokk yi xam ngeen ne bi ren bi nag commission bi waajal nañ ko bu baax a baax waaye lu jëm ci ñaari réew yi ñoom ñëpp yombal nañ liggéey bi ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, taalibe yi ci fas yéene jéggi. ci jàmm ak salaam formalité yi lu ci bëpp nag am na ay soppiku ndax yombal nañ leen yenn ci ay taxes yoo xam ne nii daañu ko doon amal dañuy déglu ak ki nga xam ne moom mooy soxna Famaloo jiite délégation bi nga xam ne moom moo jógee Dakar ci turu soxna si lay waxe waaye tamit ci turu Cheikh Abdoulaye Dieye. commission bi ñëw na tabarkàlla gisee ñoo gaa yi ba nga xam ni fay bi xaw na woyof tuuti xaw na woyof euh, Moulay Aydara mi ngi mi ngi daw rek bureau bu ne mi ngi fay dugg mi ngi woo commandant yi mu ngi woo xam nañu ren. bi ñu ñëwee formalité dafa gaaw ndax li ñu daan laaj carte d'identité yi di xool niñ di yéeg yi mais yooyu defuñu ko dañu leen jox liste ñu dóor ci cachet ni leen dem la ñi waa Sar Sara ñu jéggi fay nañu ba pare léegi dañuy xewlu bu ñu xewlu rek ba pare il a non choc incha allah dem dallu ji. ñoo ngi d' abord masaloo ñëpp ñi fi ñëw parce que vraiment xam na nañu yoon bi metti na mais jël nañu ay jumtukaay yoo xam ne dina weefal nit ñi. ci fànnu dal gi ak ci fànnu organisation bi au niveau de de l' administration am na am na am yomb yombal li ñuy defal parce que amoon na ay jafe-jafe ci traversée bi mais léegi alhamdulilah ra tax na ñoo ngi ñaan yàlla at bu ne mu gën a weef waa kuréel Jaysun ñoom nag di kuréel boo xam ne ni ñu nga bawoo ca dakaar nag ci Masaalikul Jinaan waaye nag ñoom nag dañoo ànd ak ñi nga xam ne moom mooy ONG Ahlu Café nekk ci wetu soxna si ak soxna maam Famalo ñoom ñëpp fas yéene jàppale waaye tamit ngir tàbbi ci liggéey bi nga xam ne moom mooy Ziyaaratu Sarsara bi édition 2023 bi ñu déglu rek ki nga xam ne moom mooy Serigne Makhtar Dieng ren seen wàccaay bi ak lan ñu fas yéene def ci biir Mauritanie. suñu programme mooy dañuy dem Serigne Sidi waxtu bi ñu eggee euh, Nouakchott dañuy dem mu ñaanal ñu tàmbali liggéey am na étape bi ñuy def foofu nag daanaka le deux yaakaar naa am na ci étape bi ñu fay def le premier nag yaakaar naa mooy sa Sassar loolu nag ñun gudd àjjuma bi kuréel jëy suñu ngay seen nii ku ñu demee foofu dañuy fanaan jàng ba peut être bi ñu xëyee gudd gudd àjjuma bi ñu def gudd àjjuma bi dem daal di dem Matamulana ndax sëriñ bi ren dafa bëgg kuréel jëy suñ bi mu Matamulana kon loolu mooy suñu programme incha allah samedi nag ñu dem ci salle de conférence daal di ñibbi si Ndakaaru mbokk yi xam ngeen ne nag euh, ziar Sarsara mbokki taalibe yu bëri ñoom ñoo ciy ñëw ren nag la ciy soppeeku lu bees benn mbokkum taalibee bu bawoo ba Casamance moom tamit bokk ci ñi nga xam ne maanaam danoo fas yéene ñëw dem ci bërëb bu sell boobu di seen ñëw bu njëkk am mbégte lañ ci jëlee ñu teewlu ki nga xam ne moom mooy Aliou Akim Djiba moom nag di benn ci taalibe yi Serigne Touba yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Casamance mbégte mi ko indi ba mu ba fas yéene ànd ak mbokki taalibe yi ci ziar Sarsara bi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mortala Kane ren dama am yéene ma dem tamit ma xam fan mooy eh, Sarsara ma gis foofu kéemaan Serigne Touba loolu loolu war sama tànk bégg na kontaan na sawar na lool parce que musuma dem Sarsara loolu donc lu ma gis mbooloo yi rek sant na yàlla sant na Serigne Touba bu soobee yàlla maa ngi def ñoom ñëpp ay message bu soobee yàlla déwén du nekk man kese la incha allahu suñu daayira bi dina am de délégation yoo xam ne dañu bokk si soxna Fama Lo ngi dem ziyaare Sarsara injoome mani kontaanie di télévision yangara ah. ña wuli koke manu tiplo fala fati Mauritanie wuli kooku taate manu jogenore pour be jaay be ziyaare ti Sarsara mbokk yi yegsi nañ ci Nouakchott délégation bi nga xam ne ñoom ñoo jë bawoo fële Touba Dakar waaye tamit nag ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi yegg si nañ ci kanamu Serigne Sidi Mbacke Murtada bi mu dikkee nag dalal na mbokki taalibe yi waaye dalal na ñëpp ñi nga xam ne maanaam ñoo ñëw fas yéene tàbbi ci liggéey bi ñu teewlu rek ki nga xam ne moom mooy Cheikh Abdoulaye Dieye ci turu nag ki nga xam moom mooy euh, Serigne Modou Kara moom nag mu yëkkati ay kaddu kaddu yu mbégte ak kaddu yu cant jëmale ko ci bés bi nga xam ne moom mooy am fii ci Nouakchott ci teeru bi nga xam ne Serigne Sidi Mbacke teeru na ko ñu teglu Serigne Modou Kara moom Serigne Modou Fatou Xëri ci turu soxna Maa Issa Mbacke mbooloo mi xajuñ ci biir saal bi waaye seen xol xaj na fi waaye ñoom ñëpp Mbàkke ñu ngi lay ziar di la ndokkeele ci dix-neuvième édition bi nga xam ne moom lañ tudde Cheikh Mamadou faadal yàlla dogal na tam njabootu Serigne Fallou ñu ngi ci yoon di wàcc fas yéene ñëw suba incha allahu taala ñoom itam li ñu waroon lépp ci yombalal leen yoon bi liñ ci man lépp def nañ ko kon nag li nga doon ñaan euh, sa maam dafa mel ni am na ndax sun borom subhanahu wa dogal na Eh, ñun ñëpp ñoo àndandoo ndékkee Louga jógeendoo Louga def benn convoi ba ñëw Rosso añandoo fa bañ noppee tam ñoo départandoo ba dañu agsi ci kër gi wax dëgg yàlla amuñ tam benn jafe-jafe yoon wii lépp jàpp ni na ñu ànd tam ak sunu mbokk yi nga xam ne ñooy taxawu presse bi ñoom itam ñuy ay jàmbaar eh, nga xam ne ay organes yu wuute ñëw nañu di couvrir événement bi fas yéene ko ànd ak yéen ci tàmbali ba ci jeexital soxna Aïda dem bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk tamit ci délégation bi moom tamit teewaayam fii ci Nouakchott ci kanam sëñ si di mbégte mu yaatu la ci leen ndax ñoom nag bokk na ci ñi nga xam ne maanaam saa su ne ñi ngi ko doon waajal ngir fas yéene ñëw seewee bés bi li nga xam ne nii wooteeb euh, Serigne Sidi la waaye ñu tuddee ko Serigne Fallou ñu déglu soxna Aïda dem ci micro Cheikh Samb. ñun nañu ñu waajee dañu waaj ànd ak soxna Aïda Deme jëwriñu maam jaara Masaalikul Jinaan ñu waaj ko nag ànd ak suñu jëwrin alaaji mbàkk yu fay ak suñu yaay Adja Gamou Diop suñu jëwrin ñëw fii nag ci Sarsara waaj ko nag xam ni sëñ tubaab bi mu ñëw fii metti woon na ñu waaj nag bëgg fu sëñ Touba eh, nekkoon rek ñu waaj fa siyaar ko ndax ñun muridoon rek la ñu xam te loolu lañu baaxoo tubaarkàlla ba ñu déparé Masaalikul Jinaan ba bi ñuy egsi eh, eh, biir Mauritanie dara manqué ñu xiifuñu maruñu yëguñu metit bi yëguñu coono bi di sant yàlla bam ñu booleeg ku baax ñu ànd ak ku baax ñëw di seetsi ku baax. gën a gën a soññaa taalibe murid ñu takkuwaat ndax suñu jàmbaar ji sëñ Touba ñun mënuñu ko fay di ñaan yàlla daal lépp li fi indi rek muy wéy di yàlla na ko borom faj muy njàqare yàlla na ko sama borom faj indi ñu xéewal ñoo di ñu ko. te saare ko nag ci réewum Sénégal gépp te indi jàmm nag Sénégal ga ñu bàyyi bàyyi ko di suñu réew ma ñu bàyyi ko ñëw fii yàlla ñu fa dégg jàmm fekk fa jàmm ci barke borom Touba delluwaat nag egg nañ ci jàmm delluwaat ci jàmm te kenn ku ne dellu sa njaboot te kenn ku ne loo fi ñaan ak yàlla ko sëñ Touba nangu. mbokk yi Serigne di Mbacke nag moom mooy tëj jotaay bi bu ko defee nag mu daal di eh, ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw yegg si nañ ci jàmm ak salaam waaye nag mi ngi leen di dalal ci jàmm. ne fii seen kër la ñoom ñëpp ñu fas yéene soobu ci liggéey bi ngir mën a yaatal li nga xam ne moom mooy liggéeyub Serigne Touba fii ci Sarsara ñu teewlu kàddu sëriñ Serigne Sidi Mbacke Mourtada. Serigne bi nee na mi ngi sant mboole mbokki taalibe yi nga xam ne. nee na ñoo nekk ci ginnaaw sang yu tedd yi. nee soxna maam Isaat. nee na fii moom barabam la nee na te liggéey bi itam soxna maam Isa daf ko àndeek ñoom fu yàgg ba tey nag mu indi ko fu sori nee na mbo nee na nee na délégation yi sax lim bi moom daanaka mën nañ ne ñëpp rek ndax ñëpp teew waaye waaye nee na jar na ko bu baax nag nee na nee na tànk yi nga xam ne yëpp jéggi nañ ko te tara taxul ñu jéggi ko lu may waxam ji mu wax ne inna lazina ila sarsaara xat xasadu ziyaarati daar yi ne aw saara lu ko jar la nee na kon nag ñun ñëpp dañuy maase tàbbi ci wax jooju rek nee na nag loolu jar na jóge fu ne di ñëw nee na muy wax soxna si at mu ne rek nee na yéen yéen a ñu gañe ndax ñoom fi ñuy jóge dem Sarsara ñun fi ñuy jógee jot Sarsara moo ko gën a sori te dañoo wax ne ku jóg jëm ci ak jaamu yàlla bépp jéego boo jéggi rek ak jaamu yàlla la kon nag nee na li muy wax bokki taalibaam yi rek ñu ngi leen di wax ahlan wa sahlan jóge ngeen ci seeni kër waaye yegg si ngeen dem ci seen kër kon nee na daal mi ngi wax gan ñi nañ dal ak jàmm mbokk yi bi caravane bi di yegg si fii ci Daaru Naim ci Nouakchott nag ay sarxolle la ñu teeroo caravane bi nga xam ne Serigne Modou Kara ak soxna Ndey Sey ñoo ko ñëw ci turu soxna maam Issa Mbacke ñëw kër Serigne Sabara Fall gis ngeen ambiance bi noonu ñuy dund mbégte mu yaatu lañ ci jëlee ndax ñoom ñëpp vraiment kontaan nañ bu baax a baax ne lii kat dañu ko namoon dañu namoon mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo jugee Touba at mu jot di dal ak ñoom ñu gis ngeen noonu kon mbokk yi lii moom moo fi xew fii ci Mauritanie mbokk yi ci kàddu gi di jaxatee ci caméra bi laaj Hadj Fall Ndoye ci réalisation bi seen Cheikh Samb beneen édition journal Ziar Sar Sara édition 2023